ci li nga xam ne mooy régime mu Macky Sall ji Sénégal récupéré waat lu ci bëri ci ay terre wala boog ay territoire fële ci Gambie. dama ko wax keroog dama ne Walfadjri. Mhm. wax nga ko réveil quoi. présidence dañu war a bind lettre de félicitation. nañu merci bravo. parce que ñun ñoo fi soulever le cas de Touba tranquille et le mhm. ta le cas de Boutoupa Camaracounda et d' autres cas Omar ce qui se passe. Mhm. D'abord, il faut féliciter le président de la République. Diomaye. Qui a eu le courage. Mm -hmm. de dire à son homologue gambien suuf si suufu Sénégal la. parce que tracé frontalier baa ngi nii parce que gambien xam na ñoon def. Mhm. dañuy ñëw mbokk rek maag yow ay mbokk nañu man ma dëkk fii Sénégal yow nga dëkk Gambie nga ñëw seet si ma maa bëgg nga abal ma ma béy fii. Hmm. ma abal la après nga indi fa sa soxna woo sa frère kooku indi soxnaam nga woo sa beneen tonton mu indi ay eh, njabootam ainsi de suite ainsi de suite man bu ma la abaloon un hectare affaire bi dem ba nekk cent hectares. Hmm. après da ngeen dëkk fa njaboot judd fa ut fa daara nangam sangam ut fa armel ut fa jàkk ainsi de suite. c'est comme sa que dans cette partie. Hmm. nañ def ba Gambie récupérer quatre à cinq kilomètres du territoire sénégalais à chaque fois. bi nga xam ne la commission de gestion des frontières bu nekk présidence bu ñu jógee. Mhm. pour dem ñu revoir le tracé frontalier Gambie bañ. bu ñu accès ba foofu ñu ne non machine bi kii bi appareil bi war a tracer frontière bi dafa paan. Mhm. gars yi dellu si dem nañu ba position armée sénégalaise bi nekkoon Touba tranquille mhm. position armée sénégalaise bi nekkoon Touba tranquille dem nañu ay jamono ba neen léegi ñoom militaires yooyu sax bëggatuñu leen gis foofu. suñu ay militaire Sénégal ñun suñu ay militaire suñu biir réew. Hmm. ñu ne ñoom bëggatuñu leen gis foofu nguuru Macky Sall ne leen nañ fa jóge brigade gendarmerie ba fa nekkoon. Hmm. gars yi sànni ko fële ca aj ak jàkk poste gendarmerie plutôt. Hmm. waaw mais d' ailleurs sax au commandant de la gendarmerie poste boobu dama nga xool ko loolu du poste de bi boo nga dem tabax fa un poste de foi parce que poste euh, digne de nom parce que poste boobu du poste. waaw loolu moom du poste gendarmerie la gendarmerie mérite mieux qu'un poste que post ki qui est à Touba tranquille <coughs> yi Gambien di dugg di dugg di dugg fii nañ ko dénoncer baron yónnee naa la le tracé frontalier hmm. biñ leen biñ ko dénoncé non yónnee naa la tracé bi wa hmm. voilà biñ ko dénoncé dañ ko dénoncé bi ñu ko dénoncé fii le lendemain Gambien daal di ñëw chef de village Touba de déglu le chef de village Touba tranquille hmm. mooy nekk biir Sénégal Gambie ñëw police Gambie ñëw jàpp ko ne moom dafa amel impôt ci suuf si fi mu dëkk moom chef de village moom chef de village bi quoi moom nga xam ne moom moo doon abalaate di maye naan leen fi abal naa hmm. yi ñëw jàpp ko yóbbu ko ne ko yow danga ñu amel impôt ci suuf si fii nga nekk parce que ñoom jàpp nañ ne suufu Gambie la alors que bu Sénégal. waaw ne ko ameel nga ñu fii. Mhm. impôt lu toll fukki at ak nangam fayoo ko léegi dañ lay dugal ci kaso bi boo fayoo doo génn te loolu bi ñu defee émission bi fii. Hmm. boobu nañ def loolu. moom mi ngi ci prison bi wala. génn bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko ñu daal di di bind di wax di alerte autorité di alerte autorité ba finalement le président Bassirou Diomaye a pris les devants. Mm-hmm. imposer un nouveau contrôle de la frontière. Mm-hmm. gars yi gis ni que Gambie dugg na sur plus de cinq kilomètres biir Sénégal. tey jii alhamdulilah. Mm-hmm. grâce à Walfadjri. Eh, alhamdulilah Sénégal delloo si na récupéré na ses terres. récupéré waat na ses terres. waaw kon nag moo tax ma ne ñun. jaaraama nu ñu bañ bañ bañ il faut de temps en temps dañu féliciter quoi ay kàngam ngeen ah il faut il faut de temps dañu féliciter naan ñoom bravo vous avez raison on a réussi et ça c'est le président de la République il faut la féliciter di mhm. la été courageux jaay wàllum suuf day mel ni caaxaane wuñ ko de ah, mais <laughs> mbuur kat rek gis nañ li fa xew ah, mais nga ñu naan la mhm. Sénégal te y a d'autres soucis mhm. Touba des na yaa euh, côté euh, Saloum bi côté Tambacounda bi côté Boutoupa Camaracounda ba nga xam ne yaa moins de trois semaines la fa ay sénégalais euh, reyante ay Guinée-Bissau yaa eu trois morts. trois morts ci suuf bi nga xam ne Sénégal moo ko moom ñu abaloon ko ay gars ñu fi nekk fa gars yi ñëw ne dootuñu fa jógee kooku jógee Dakar ñëw ne dafa soxla suuf si mu mujjee dégénéré trois morts sur le coup. donc yooyu c'est des problèmes yi nga xam ne tey il faut s'en féliciter il faut féliciter le gouvernement du Sénégal pour sa posture mm-hmm. waaw parce que l'intégrité du territoire ne se négocie pas absolument alhamdulilahi rabil alamin Omar mm-hmm. waxtu bi daa mel ni jot na waxtu bi jot na donc félicitations au président Bassirou Diomaye fay mais aussi félicitations au groupe Walfadjri ah, ñoom ñu ci def ay investigation ak liggéey bu am solo ba ñi nga xam ne ñooy autorités yi mujj ci jot rek récupérer waat li nga xam ne mooy terre yooyu la général ñu ngi lay nuyu bu baax a baax <laughs> Bassirou Diomaye noonu tenu bi daf ko jàpp nag di la jaajëfal bu baax a baax Pape bàyyi la nga tàggatoog suñu mbokk internet yi waa mais xaa ma xool rek euh, ñan ñoo ci nekk ci ligne bi ma soxna may a de maa ngi koy nuyu bu baax a baax ah. moom mi ngi ci ci live bi ah Omar nuyul ma leen daal parce que gisatu ma leen. Maimouna Babacar Sarr Sekou jata ñu ngi koy nuyu faamu Koli ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Djibril Fall ah Moussa Lami ñu ngi koy nuyu bu baax a baax gars yi dañ dañoo xaw a bëri nag laat ngoom ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal grand Sidi Koulibaly kooku sama grand la maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar Mbaye Gueye sama doomu baay la maa ngi koy nuyu bu baax a baax mu mel ni bëri woon nañ di commenter waaye tamit di indi seen ay contribution ci waxtaan bi ñu doon def Pape kon nag ñoom ñëpp ñu leen di jaajëfal. Hmm. bu kàddu yu dëngee ñu ngi jéggalu waaye rek du woon euh, sunu intention tooñ kenn dañu bëgg rek. di leeral sénégalais di leen jaajëfal encore di leen jox dig daje incha allah jeudi prochain Baron vraiment merci à toi l'excellent travail que euh, tu es en train d'être que tu es en train de faire Baron dina live waaw non Baron nag wax fa dëgg yàlla euh, il faut lui dire les gens dañuy dégg tur bi mais tey jii bu ñu amee la qualité de ces images là ak illustration yi c'est grace à Baron nga xam ne day bàyyi jotam yëpp waroon xëy si 15 heures mais 10 heures fii la ko fii fekk mu commencé de préparer émission bi donc euh, Baron vraiment. merci merci beaucoup voilà nuyu Ndoye góor gi nuyu Fallou Senghor nuyu Seeku Diatta moor Diop nuyu leen yéen ñëpp infiniment je vous remercie je vous aime vous êtes vraiment. de bons de bons patriotes et de bons sénégalais jaajëf. say gaañ lañ de. waaw mais moo. Ah. voilà. noonu la di ko jaajëfal bu baax a baax moom Pape waaye tamit di jaajëfal baron mi nga xam ne mu nekkoon ci wàllum technique bi di jaajëfal feuse ak ki nga xam ne mooy monsieur.